Euh, politiciens yi ne ñooma euh, professeur wax na léegi ci lu soxal caisse d'avant caisse euh, noire bu njiitu réew mi voilà njiitu réew yëpp nag ñi fi jot a jaar ak ñëpp wax naa ko sànq moo tax ma ne la nu mel ak njiitu réew meeg yi fi newoon mm-hmm. parce que tamit dégg nañ fi wàllu sub xaalis boo xam ne ni Alexis Sagoura ak yooyu mm-hmm. yu doy war la guerre moom xam naa ne dafa am yu kaweeg yu suufe mm-hmm. waaye yéen politiciens yi c'est-à-dire lan mooy seen rol ak yu mel nii heure bu ñëwee yéen xam ne da ngeen a te ci bi Euh, sous Macky Sall euh, son excellence à chaque fois ñu ne ci liste rouge mënuñ ci génn zone rouge yéen ban gis-gis ngeen di nan ngeen di xoolee seen bopp yéen par rapport ak loolu. jërëjëf mon frère maa ngi rafetlu débat yi. Mhm. ci dal gi ak yëpp euh, di rafetlu xam-xam yi fi jib mais également di di wax rek ne un débat d'idées am na solo mhm. mais quelle idée foofu foog ñu teg fa dut fa baaraam taxaw pour mën a encore recadrer le débat dafa am solo parce que bu ñuy wax corruption je crois que le niveau d'analyse wala baromètre yi comme ni ko waxee waruñ ko xëcc jëmale ko tout simplement ci état am na lu fi rek sànq ci ay concept ak ay parole ma jàpp ko mu nekk lu am am solo mais ça m'a fait beaucoup en quelque sorte parce que dafa ma ci jàpp yoo xam ne nit dina dem sax bi def analyse dóor boppam te du ko xam. ci analyse nit dina def analyse duma boppam te du ko xam. Mm. mais comme ñun ay enseignants lañu. avec la pédagogie dañuy xamee loolu yëpp dama la jox benn exemple ndaw. Euh, et de façon globale laa bëgg a def analyse boobu noonu. door a ci euh, l'essentiel du point. exemple bi ma lay jox mooy ci image laa koy def pour nga gën a comprendre maanaam dama koy tënk fen ëmb ko fen pour jàngale bi yomb. boo nekkee ab enseignant nga ne ci classe. Mhm. nga def nga def comme nga def un devoir wala benn composition. nga noté sa classe nga génn nga gis ne boo defee bi nga defee say statistique wala say xayma nga seetlu ne vraiment la plus grande moyenne c'est cinq boo wetee sa néeg war nga xool xam ne sa jàngale yow des na wala am na loo xam ne waroon nga ko def te defoo te defoo ko très bien loolu je crois que c'est important mhm. foofu lay rejoindre sama sama sama frère mon collègue le mhm. professeur fi mu waxee ne am na sax fu mu ko tuddee ne amour de la patrie fi mu waxee ne à non certain moment dañuy tollu foo xam ne ni amour de la patrie bi dafay rëcc. Mhm. ba duñ xamati lu ñuy def. Mhm. donc foofu lay njëkk a analyser xam nga tey état dañ koy dënk. Mhm. parce que état ki koy dënk du boppam. dañuy dem élection au sortir des élections ñu ne état bi dënk nañ ko lii. ki koy denk du ay du du du maanaam du ñeneen lu dul ay doomu aadama. yoo xam ne ils son respectables et respectueux ñoo koy denk à travers aussi ci loo xam ne nii mm. buñ koy def xew-xew bu rëy lay nekk muy ay élection loolu je crois que c'est important mm. ñoon ñooy tan ki nga xam ne moo leen di jiite ki leen di jiite da leen yoon wi lañ war a jaar mm. mais je crois que ñëpp buñ fa jaaree dinañ am résultat bu ñu amul sax résultat escompté yi mën na am ñu am ci maanaam loo xam ne dina dal suñu xel mais boo seetloo jamono ni muy doxee léegi mooy état dafay joxe ndigal ci lii mu am ñu taxaw nekk ay détracteur di wax chiffres yu amul benn di wax données yu amul benn rien que pour faire le buzz wala pour exister de façon médiatique am na li ma la wax ni c'est c'est des choses avérées mais la preuve bu ndaw bi ma lay jox ci loolu mooy lu ñu dund fan yi am na ñoo xam ne dañ leen jàpp def leen mandat d'arrêt yóbbu leen ñu ne lii ñu teg ci kaset bi waxuma ko te fekk ñoo ko wax wala lii ñu may wax loo waxuma ko donc ba nga koy wax demb sa sa bakkan nga ko waxee woon wala xaw lan alors que Sénégal nga war a teg ci kaw waroo xool rek kii jiite Sénégal war nga jël Sénégal nga teg ko ci kaw mooy amour la patrie bi nga xam ne wax nga ko mu nekk lu ama am solo loo xam ne man très sincèrement c'est là où mettre le débat aujourd'hui chacun de nous ku nekk si ñun am nga lu la war ci Sénégal bu fekkee da taxaw ci tous bi di sànni xeer kese je crois que yow